tout droit nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baax a baax yéen mbokk internet yi ñuy suivre ci Lamyn TV ñu leen di jaajëfal bu baax waaw di leen di wax ne nag gannaaw bañ jógee ci li nga xamante ne moom mooy vingt quatrième édition drapeau chef de l'état fële ca Mbour mu amoon entre le 9 ba le 12 mai 2024 tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom mooy le président du comité régional de gestion de la lutte bu région wu Fatick le président Mamadou Sarr ak ci li nga ne chef de l'état bi ñu manam dañ koy commencé ci li nga résultat def bilan bi wax ñu ko ci compétition bi côté sportif bi aussi ñu def bilan côté financier mom mu wax gagné. ñi si jàpp ak affaire yooyu noonu ñëw ci remerciement bi mais dinañ wax aussi li nga xamante ne moom moo di déroulement wu drapeau chef de l'état bi moom nan la ko gisee lan la ci gis loo xamante ne rafetlu na ko lan la ci gis loo xamante ne war nañ koo mun a defaraat pour beneen yoon drapeau chef de l'état bi gën a doon la nga xamante ne day gën a am beneen jëm gën a avancé balaa ñoo xuus si waxtaan bi nag voilà dañ koy nuyu bàyyi mu nuyoo président nuyu nañ. Mm-hmm. maa ngi lay fay Lamine. Euh, sant leen gërëm leen surtout euh, Lamyn TV organe bi nga xam ne yow yaa ko jiite euh, di si def pas bu am solo si làmb surtout li nga xam ne ñun si la ñuy yëngu bu loolu weesoo aussi sant yàlla dem nañ drapeau chef de l'état ñib si nañ ak jàmm mais ñu sant yàlla parce que daaw ñoo ngi jëloon troisième place Euh, prix mu troisième place lañ amoon aussi ren ñu def beneen pas ba dem final yàlla tax aussi ñu ñàkk ko si kanamu Dakar mi nga xam ne moom moo ñu éliminé woon euh, si demi-finalu euh, Saint-Louis ba voilà kon def nañ benn pas jalaat deuxième di ñaan si yàlla aussi ndax yàlla euh, buñ ko fekkee ak déwén yàlla may ñu ndam boo xam ne drapeau bi dañ koy delloo siwaat euh, Fatick def ngeen benn pas mais man damay taxaw tey taxawaayu amateur yi taxawaayu ku dëkk région de Fatick mooy que ni bu ñu nee drapeau chef de l'État dañuy xoolee Fatick ni Brésil ci coupe du monde buy dem tant jëlu ko mënuñ wax ne résultat bi satisfaisant na donc Fatick à chaque fois gars yi dañ koy xaar mu jël ko parce que man dafa am benn statistique bu ma def ci drapeau chef de l'état bi mm-hmm. voilà quatorze régions ñoo fi nekkoon mm-hmm. chaque région cinq lutteurs mm-hmm. mais drapeau chef de l'état bu ren bi man noté naa ci dix neuf lutteurs yoo xamante ne Fatick lañ jóge quatre ñoo ci nekkoon région Fatick seen poids lourd bi wala suñu poids bi di général bu Malika waa Dakar la mais yeneen quinze lutteurs yoo xamante région Fatick lañ dëkk ñu ngi nekkoon ci yeneen région yi voilà ba tax na Fatick comme ni ñu koy waxee moom mooy la gërëñee des lutteurs maanaam moom moo ëpp lit ay mbër fii ci Sénégal bay joxe ay mbër bu demee chaque fois chef de l'État dafa war a jël mais ñu gis ne jëloon ngeen ko fi cinq fois d'affilée après boobu ba léegi depuis mille 2018 ba léegi dakaar moo jël après Thiès après Diourbel après Dakar encore trois fois ngeen ñàkkaat est-ce que loolu yoon la Fatick am ay mbër bay joxe li nga xamante ne moom mooy ay mbër ci yeneen régions yi di dem drapeau chef de l'État di ñàkk te dakaar bi nga xamante ne moom moo jël drapeau chef de l'État bi am na deux yoo xam ne ci région Fatick lañ jóge kii yaa Mouhamed Ndong yaa mu dakaar waa Bassoul la Mbaye Diop waa Palmarin la rëpp nekk ci biir région Fatick. Mhm. Euh, loolu moo tax ba euh, ma ne la def nañ pas. Euh, parce que boo xoolee nu ñuy organiser drapeau chef de dafa am benn objectif boo xam ne CNG am na ko parce que sport international la làmb moo tax ñuy organiser chaque année 70 litres yi nga xam ne ñoom ñoo def preuve mhm. ci saison bi mhm. ñu sélectionné leen mhm. te arrêté wuñu comme ça licence bu nekk baare wuñu ko ne ko sa région nga yem kon 70 litres litres yi nga xam ne ñoom ñoo prouvé ci saison bi moom lañ bëgg a gis kon 70 litres yooyu bu ci Fatick amee lu toll ci 20 mbaa lu ko ëpp distribuer ko ci yeneen région yi bu ñooñu amee ndam sax Fatick ñàkkul et ren ñun amuñu problème mu sélection. am nañ problème mu poids lourd. Euh, général Malika. nangul ñu ko. parce que am nañ ay poids lourd mais amuñu benn problème ak suñu poids lourd yi. Doudou Sané dafa nekk ci calaf. Ibou Ndiaye am combat. le 20 mai. ordinateur amoon combat le cinq mais ngañ seen ne du dem drapeau chef de l'état léegi te ñeenti poids lourds yi ma lim nii ñoom ñëpp si région Fatick lañ lañ dëkk waa Njagañaaw voilà il est de Thiès léegi après mais ñi nga xam ne ñoom ñoo dekk si région Fatick demuñu drapeau chef de l'état dañoo am ngant ngant boo xam ne nekkul ne dañoo bàyyi Fatick dem feneen Hein? voilà kon buñu démé aussi wàlliyaani mhm. comme ni nit ñi wàlliyaane si ñun général Malika nangul ñuko mhm. euh, kon euh, pour ñun euh, amuñu problème mu sélection mhm mais aussi Nico Dakar gagné ñun aussi nous nañ ko gagné parce que bo xolé niñ ko gagné avons nañ après mu problème sens après voilà voilà deux après voilà trois deux ñu ñak ko mhm. kon aussi dama si santé yalla rek japp ne dafa jotagul mhm. mais aussi féliciter équipe Dakar bi nga xamné mom moko jël mhm. te ak euh, staff bi nga xamné ñom ñoleen voilà léegi côté résultat yi kon noonu nga ko gisee léegi ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy déroulement wu drapeau chef de l' état bi chef de l' état 24 édition bi amee Mbour. yow boo gisee loo xamante ne doxul lan nga ci cité loo gisee loo xamante ne war nañ koo defaraat lan lay doon loo gisee loo xam ne baax na dañ ko war a maintenir aussi lan lay doon. ñun benn problème kese la am. parce que Sénégal 14 régions la. 14 régions yooyu. 13 ñoo am ay CRG. mais Dakar amul parce que si si au CNG Dakar la nek ñun président yëpp d'accord nañ né na CNG réel. Hein, Dakar ben CRG donté du ko jox compétence pour muy organiser événement yi nga xamné ñom ñoy Dakar parce que beaucoup ko ko aussi ça veut dire CNG dootul exister ti CNG lu mu yenu ci charge dafa bari kon il faut muy organiser lo xamné def ci am fond fond bi nga xamné mom lay organiser mom lay dépenser si at bi. mais buñu waré dem drapeau chef de l'État ñu am président bo xamné ne moy nek nekk ak ñun. Hein? après arbitre euh, CNG yi. génné sen loxo si équipe Dakar bind nañ ci lettre wax si ba ren amna changement. parce que fofu nonu ci leeral li nga bëgg wax moy manam Sénégal 14 régions yi. 13 CRG moi, am manam région Dakar amul CRG manam comité régional légui Dakar bu ñew drapeau chef de l'État, CNG mom moy indi équipe Dakar bi CNG mom moy organiser drapeau chef de l'État, bi nek juge nek parti lolu moy li ngeen di. CNG. duy indi équipe Dakar. Hmm. def koy woutal ay responsable woutal woutal ko entraîneur. mais hmm. comme ñom ñoo hmm. hein ñun du am xel bu dal. boo xam ne dañuy gis ne CNG ak équipe u Dakar dañoo jegeyantoo mhm. ba arbitre yi mun nañu juger loo xam ne sax du noonu mhm. kon loolu pour suñu xel dal mhm. na euh, euh, na am benn président boo xam ne moom mooy représenter région Dakar suñu biir après comme ça pour ñun suñu xel mën a dal parce que ñun li ñuy kaas am nañ ci benn résultat ren drapeau chef de l'État amul benn arbitre Dakar boo xam ne arbitré nga combat Dakar amul. te daf doon am si yeneen doon am si yeneen kii yi. Hmm. mais ren waxtaan nañ seen biir. Hmm. ba loolu ñu génnee si loxo arbitre yi hmm. boo xoolee final bi ki ko arbitré euh, arbitre bu jógee Ziguinchor la. mais ñun dañoo bëgg dakaar am président comme ça pour problème la yooyu mën a am parce que sarji bi nekk ci kaw CNG ñun xam nañ ko CNG moom mooy organiser drapeau chef de l'État euh, gouvernement bi appuyé ko mais bépp équipe bu war a ñëw moom moo lay sa présélection 250 000 sa région transport pour nga ñëw fi compétition bi di amee CND ñoo la koy jox ñoom ñoo lay jox logement comme ça pour nga louer benn ker ren def nañ 150 000 comme ça pour nga louer benn ker boo xam ne foofu ngay dalal sa délégation délégation bi nu fait. toll ñoom ñoo 6 000 francs je pense par personne Hein, pendant 4 jours jeudi vendredi samedi dimanche def la jox la perdiom bo boo participer dañ lay jox un diplôme mais jox la xaliss aussi indemnité de participation bépp mbër bu ñëw président yi ñu loger len ci hôtel DTR yi ñu loger len membre CNG yi ci boppam ñu loger len kon dépense yu bari na yoo xam ne presse bi ñu loose leen. woykat yi presse ñu loose leen euh, woykat yi ñu loose leen. Mhm. ak yeneen invité yi nga xam ne dañ leen di invité pour ñu ñëw fekkee si loolu charge bi mhm. souvent état dana ko jël. dana am lu mu si jël mhm. mais dafa am dépense yu bëri yoo xam ne aussi CNG moom moo koy jël kon bu CNG occupé Euh, périphérie Dakar. ça veut dire qu'on vous peut pas, amati recette bi nga xam ne dépenser comme ça pour euh, budget de fonctionnement. pour fonctionner CNG. mais ñun bëgg nañ comme ça pour Dakar am président bi ñu que quatorze présidents au lieu de 13 présidents. au lieu de 13 présidents léegi aussi président man fi ma lay interpeller mooy. maanaam ci drapeau chef de l'état bi man damay recueillir ay commentaires yu bëri di de lire. amateurs yi ñu bëri dañuy wax ne drapeau chef de l' état mm-hmm. ñoom li leen si naqari mooy mm-hmm. règlement yi. maanaam c'est vrai ci drapeau chef de l'état la ñuy ay mbër yoo nga xam ne ñoom ñooy mën a def équipe nationale représenter Sénégal ci compétition internationale yi. mais dañ ne comme chef de l'état suñu suñu moomeel la ñun ñoo ko moom. pourquoi pas ñu bëri quatre appuis parce que trois appuis day yàq yàqal mbër yi duñ mën a bëre normal des fois ngay moytu bay daanu. du am jàpp ngemb yenn règlement yi day xaw a day xaw a tubaab bi génn ci suñ li ñu moom te drapeau chef de l'état boo xamante ne Sénégal la amee ñun Sénégalais yi ñoo bëre suñu biir. Hmm. pourquoi pas règlement bi loolu noko gisé hmm. gisee. ñu def ko Voilà, voilà dafa am lo xamné aussi hmm. nit ñi comprendre nuñ ko. gis nga bu ñu organiser drapeau chef de l'État. ça veut dire bépp amateuru lamb bu nekk Sénégal. pour ñu dajalé len 4 jours ñu consommer hein? Euh, mais bi ci téggu képp koo xam ne da ngay yëngu si lamb nekk école de lutte. mbaa nga nekk écrit de lutte. mbaa nga nekk équipe nationale. Hein? dañuy ñëw comme ça pour sélectionner xool xalé yi nga xamné am nañ avenir légui comme ça pour ñu sélectionner len école de lutte yi dem investir si ñooñu ji si ñom lo xamné bu suba mun nañ récolter si hein mais équipe nationale bi nga xamné mom lañ tuddé comme ça pour organisation bi ñu tuddé ko chef de l'État si lay tanné aussi ay poulain yu nga xamné mom lay yóbbu ci équipe ci équipe nationale bi nga xamné mom moy dem représenter ji Sénégal ci compétition internationale yi compétition internationale yi amul kat api donc chef de l'état mo doon détection de talent. voilà légui nak drapeau chef de l'état dañ ko organiser d'une manière pour mu nek lit africain nga xamné ne bu si état euh, équipe nationale tànnee ay mbor aussi danañ adapté wu ak compétition africain ba bu ñu équipe nationale war nañ a de africain defuñu comme ça pour quatre bi nga xamné ñun mom lañ mais les la bo xamné organisation la bo xamné comme ça simple bi consommer voilà manam liñ ciy xaar mo bari liñ ciy xaar mo bari liñ ciy xaar mo bari équipe nationale si lay sélectionné. école d'élite euh, si la ñuy sélectionné. écrit si la ñuy sélectionné. même comme ça pour nit investir si benn bourse, hein. Euh, pour si avenir mbor. si lañ koy sélectionné. loolu moo tax ba utiliser lutte africain voilà légui loolu leer na yaakaar naa dañuy terminer si li nga xam ne moom mooy remerciement bi. parce que drapeau chef de l'État aussi comme ni nga ko waxee gis nañ li ci CNG di def. mais li ci raison yi di di di di di daj leneen. ëpp na sax li leen CNG di di subventionné. donc dañuy dem wuti ñu leen si jàppale de gauche à droite vraiment am na ay bonne volonté. ak ay nit ya nga xamante ne dañ siy jàpp. xaw ma kan ak kan la yow yaa leen maîtriser. ñu bàyyi la kaddu bi nga sant ñëpp ñi nga xamante ne. jàppale nañ région de Fatick ci chef de l'État bi. Mhm. comme li ma doon wax sànq. Euh, j'ai def comme 15 personnes mhm. Nous la convoqué la ñoo ñu kese lay jël en charge léegi boo buggee yóbbu délégation boo xam ne day ëpp loolu ça veut dire ñu des yaa leen di jël en charge si seen dëkkuwaay si seen transport euh, si lu ñuy lekk si seen sécurité lépp après yaa leen di jël en charge moo tax aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, notable yi euh, ñi nekk si région Fatick kenn ku nekk da ngay jàppale équipe régionale bi ren aussi remerciement bi danañ ko commencé si gouverneur région bi muy madame euh, Seynabou gay euh, chaque année def ñuy alalam aussi comme ni gouverneurs yi di c'est une équipe mon inspecteur régional euh, inspecteur lolo aussi taxaway bobu si la suñu remerciement bu aussi nous dem ñi nga financièrement après nek fi licence euh, Thiaré mhm. benn douanier la nek doomu fatik mhm. mais at bu nek danañu jappalé si xaliss jàppale ñu si ay blouson mhm. ba presque bo xolé équipe yi nga xamné ñom ñoo am blouson ren euh, wuñu mais ñun bokkuñu si Filisance nit ku Filisance nit ku bax la. dafa yag di jappalé équipe régionale. même même suñu regroupement. mom moko jël en charge. lepp moo ñu ko defal. bu loolu weesoo aussi euh, ñu dem si deep corps. fay dem nañ ba mbuur mhm. mu déplacé wu ànd ak ay nitam ñëw soutenir ñu financièrement mais Bikor Faye doomu Bikol mhm. nekk responsable politique euh, de PS Hein? voilà nek poulain bo xamné ne na politique si Ousmane Tanorien mhm. après voilà ñew moralement pour ñu gis ko suñu wet mhm. amna na lu mu mhm. en même temps mu génné alalam ñu comme ça pour jàppale ñu ko euh, mister monsieur Karim Sen euh, député maire bu la jour bi ñu demee drapeau chef de l'état jour bobu la yexi si voyage mais fi ñu nekk Mbour la ma envoyé xaliss ne ma comme ma jàppale leen comme chaque année ni mu ko doon defee. moom loxoom du mos a a ñëw chaque jour da ciy def chaque loxoom day ñëw. Mhm. loolu moom dinaa ko seede. Mhm. Euh, nekkul ne ni mu nekkee sama maire. Mhm. mais aussi euh, MK. Aziz euh, Senghor. benn station la bu nekk Fatick. boo xam ne moom aussi chaque année. am na Diofior aussi ak Samba am na Diofior ak Samba mais chaque année ñu defal ñu defal ñu ay ay lakos. jàppale ñu aussi financièrement. bi si tegu aussi mooy société bi nga xam ne fa liggéeyee muy seen Agro Sen daaw mooy ñoo ñu sponsorisé woon jox ñu xaalis bu bari ren aussi voilà ñu yëkkatiwaat dara teg ko suñu loxo donte nekkuñu euh, sponsor bi euh, voilà ñooñu mënuñ leen ñàkk gërëm gërëm aussi équipe bi nga xam ne moom lañ yóbbu woon muy côté littér yi muy côté technicien yi muy côté administration bi euh, du ma mun a tudd ñëpp mais mun naa tudd ab Ablaye jon mi nga xamne mom moy sama vice président euh, tuddu Mamadou mendi mi nga xamne mom mo jité euh, euh technique bi euh, voilà ak équipe ak surtout général Malika buma ko tuddé rek euh litère littéer hein voilà li mënuñ ko mënuñ ko ñak def comme ça pour gërëm ñi nga xamne ñom ñoñu jappalé euh amna ñuy naan pour du gërëm ñamu daw mm-hmm. mais aussi équipe Fatick amuñu problème te mosuñu am problème am na ñu ñu doon jàppale donte ren seen loxo ñëwuñu danañ leen gërëm xam ne ngant moo leen dab euh, voilà parce que jotuñ leen muy docteur Cheikh Kanté ay ñoom euh, Matar Ba monsieur le maire euh, commune de Fatick ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañu doon jàppale te ren gisuñ leen mais ñoo ngi leen di sant ñaanal leen parce que ñoom aussi ñoom ñoo ñu yàgg jàppale te yàgg nañ see nekk voilà xawma lan mooy seen gànt mais mënul ma leen ñàkk gërëm mhm. si fi ñu doon taxaw voilà te ñoo ngi continuer nekk si si région bi voilà mun nañ am soxla si ñun mais ñun aussi munaat nañ am soxla si ñoom mais seen jëf aussi maa ngi koy fàttaliku surtout Matar Ba ak docteur Cheikh Kanté léegi président mooy ma tuuti rek benn mbër Cheikh Sarr 66 kilo région Fatick mu dem chef de l'état ba ñib si daanuwul benn yoon catégorie 66 kilo moom moo ko jël mais bi mu ñibbee Jirnda yaakaar naa gis nga vidéo yi ñu teeru ko tertu boo xamante ne boo ko xoolee sa yaram day daw Jirnda ñëpp génn teeru ko loolu président nan la la def bi nga ko gisee. cant boobu damay sant waa Jirnda li sa li nga gis ci sa bot ñu teeroo ko Cheikh damay am njort bu rafet ne taxawaay boobu la ñu taxawu Cheikh bi ñu déggee ne sélectionné nañ ko. kon yàgg nañ ko taxawu. moment bi mu nekkee drapeau chef de l'État. ba yàlla may ko ndam looloo tax muy ñibbisi ñëpp génn teeru ko. kon Jirnda ñu jar a sélectionné. mbor la. bu ñëpp defoon. ni ñoom. kon bu boobaa aussi nañ euh, gën a sant yàlla. Euh, li ma siy teg mooy bu ma xamoon ne. waa Jirnda dañuy teeru Cheikh. man maa ko yóbbul sama bopp. duma ko wuutu mhm. mais ni nga ko gisee si vidéo bi noonu laa ko gisee si vidéo si vidéo yi man incroyable mhm. incroyable kon mention spéciale à toute la population de Djirnda mhm. loolu moom maa ngi leen si sant bu baax a baax di leen ñaanal comme ça pour ñu gën a jàppale Cheikh ak ñeneen bor yi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo parce que amoon nañ sélection aussi boo xam ne Djirnda la dekk mu nekk Moustapha Ndoubab demoon na sélection yàlla tax après wala ñu wàññi ko mais aussi di gën a ñaanal même même Lambar. waa jir waa jir waa Jirndala. Mhm. lambaar waa la mhm. moom tamit extraordinaire. Mhm. ñoo ngi sant équipe yëpp sant ñëpp baalu ñëpp ak euh, voilà waa Jirnda ñu leen di sant bu baax a baax Cheikh mooy meilleur lutteur. meilleur lutteur du tournoi waaye. ok acca kon jaajëfal nañ leen ñoom Mansour Tine ñoom Fa Mbouda waa Soob Ñaaxar <laughs> waa Baasul gaa yëpp jàngeen jëf